peut-être en face du futur président de la République monsieur le président ñu ngi lay nuyu daal ak jàmm suñu plateau. waaw maa ngi lay fay Nene Aïcha maa ngi nuyu également mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan. très bien alors xam naa euh, dinañ ñëw dugg bu baax ci sa programme parce que euh, comme on le dit 2024 dafa nekk tournant bu décisif pour Sénégal et je pense que euh, ça serait bien candidat yi toog jàkkaarloo ak téléspectateurs yi wax leen un peu euh, suñuy jiite 2024 naka lañ ko nar a defee à partir de 2024 mais on va revenir un peu sur l'actualité et l'actualité on le sait euh, maitre Moussa Diop yëkkati ay accusation euh, teg ko ci sa kaw jàpp ne que euh, da nga jàppale président de la République pour benn entente ak kii di Mimra euh, par rapport à l'exploitation d'une mine ñu gis ne que à la suite de ça porté nga plante kii di maître Moussa Diop nan lañ mën a jàpp ci affirmation yooyu le maître Moussa Diop yëkkati. waaw mais merci beaucoup effectivement comme ni nga ko waxee. samedi foog naa ne ci ngoon le maître la Moussa Diop def euh, benn euh, vidéo en tout cas ci parce que gëw ma noonu sax ne conférence de presse la parce que moom rek moo doon wax gisuma keneen kuy wax ak moom euh, ma dégg ko ci biir vidéo bi muy wax ne man bi ma nekkee ministre des mines mhm. dama joxe benn permis diamant mhm. jox ko Mimran Euh, ma gis ko mu ne dafay lire benn lettre boo xam ne bii maa ko signé le premier décembre 2016 en tant que ministre de l' énergie et des mines euh, loolu nag dama gis sax vidéo bi di circuler ci réseaux sociaux yi mhm. euh, wax dëgg yàlla ma posé wu sax ay question parce que nag lu mel noonu bu amee da ngay laajte d' abord mais lu tax yan la première question mooy mhm. pourquoi moom mu xaar ba heure bi di def loolu di ko def di ko jëmale ci man parce que boo xoolee ci vidéo bi ñett nit la ci tudd man la ci tudd. Mhm. président la république ak Mimran. Euh, man mim ci tudd man dong maa ciy candidat présidentiel ñi des duñu ay candidat kon ma jàpp ne am na motivation bu war a lii ak loolu surtout que moom aussi candidat la. donc pour yow affirmation yu mu taxaw wax yëpp. dinaa ci yegg loolu laa jàpp lu tax mu xaar ba heure bii mu koy def maintenant. bii la jot information yooyu. waaw moom laa expliqué moo tax maanaam yow da nga joxe benn élément de réponse man xaw ci dara man damay laajte rek damay poser des questions comme beaucoup de Sénégal di ci poser des questions mais li am solo mooy bi ma dégloo mu wax ba pare dama jàpp ne très franchement bi ma ko njëkkee déglu dama jàpp ne dafa juum. Hmm. ndax léeg-léeg aussi ñu jox la benn information nga jàpp ne téye nga lu rëy. yàkkamti peut-être moo tax bu xooloon tuuti rek xam ne. Mhm. téyewul dara. sur quelle base. ndax d'abord li mu liir hmm. benn style rédactionnel boobu un cadre un même petit fonctionnaire buy démarrer du ko bind. waxuma la ak nag un ministre maanaam di bind parce que hmm. quand boobu j'avais fait quatre ans de service c'est-à-dire man du ma bind. Mhm. d'abord koo xam ne kii sequma ak moom dara man mu fàttaliku sax fu mu masay toogee ak Mimran. Mhm. donc sequma ak moom lu ma koy bindee lettre moom. personnellement parce que bu fekkee ne sax dañu maa bind lettre du doon ci turu kenn turu mhm. société lay doon nga tontu société. Mhm. loolu mooy d' benn ñaareel ba donc d' abord ci bind bi donc ci liñ terme yi nekk ci biir bu xooloon tuuti xam ne ministre du bind loolu rawatina nag ministre di bind ne danaa jógee ci département juróom-ñetti weer wala juróom-ñeenti weer avant. man loolu en tout cas awma boobu prophétie parce que book président Macky Sall muy tabb. Mhm. waxuma woon ne damaa génn ci nangam. loolu mooy d' abord benn. boobu mooy ñaar li ci des mu nekk ki ko signé moo doon ministre de l' énergie et des mines parce que da doon liir je rappelle bien kuy liir donc da tiim dara di wax. Mhm. donc te ministre de l' énergie et des mines ça n' existait pas au 1er décembre 2016. donc dañ ko tasoon. waaw non tasuñ ko woon c'est-à-dire que dafa amoon ministre de l' énergie et des mines ensuite ñu génne énergie. def industrie et mine. donc bu puisque li mu liir énergie et mine moo ci ne mënut a nekk man ñetteel ba aussi te ne mooy li ëpp solo. Mhm. lettre boobu musta am. maanaam du wax sax que ne kii la musta am musuma bind lettre Mimran musuma jot tontu Mimran lettre boobu amul. kon moo tax ma jàpp ne bu koy wax maanaam bu seetlu woon tuuti li mu wax dina ko xool bu baax dama gëm ne dañ ko tegal ndëgg sërëx malheureusement. mu mu daan mais comment un avocat. Euh, averti ah, man nag ku mel ne euh, mais Moussa Diop. bonne question euh, ñu ñu tegal ko dëgg sërëx ba mu mën a taxaw tenir ay accusations et même après cela dafa jàpp ne que il a des preuves de ce qu'il avance génnu ci benn. loolu lépp gannaaw gannaaw loolu am na. man duma fi nekk di spéculer parce que wax dëgg yàlla heure bii nii. muy moom muy man xam nga lu ñu waroon intéressé mooy toppatoo suñuy parrainage toppatoo suñu dossier dem présidentiel. mais gannaaw moom dugg ci loolu man du may possibilité di ci perte temps bi nga xamee ni bii jàpp naa ne sama honneur. quand même na ko tey dama am njaboot dama am également ay ay ay militants yoo xam ne dañoo am ci man yaakaar li ma jàpp rek mooy gannaaw wax na loolu te am na ay preuves jafewul tout simplement donc gannaaw porté naa plainte tey dem naa def sama audition li ci des maintenant yoon na ko leeral li ma bëgg rek man mooy mu setal sama der tout simplement. d'accord da jàpp ne que parce que yaa ngi koy wax tout à l'heure sortie bi euh, gis nga ne que yow yaa fay candidat peut-être ñu jàpp ne que c'est un candidat qui s'adresse à un autre candidat mais selon vous yan intérêt quelles vos relations ak maître Moussa Diop. wallaay on a de très bonnes relations. ba mu war a jël ah, yenn accusations loolu boo amee occasion bu ñëwee fii nga wax ko ko. parce que gannaaw man waxuma moom mënuma ci tontu parce que xaw ma lu tax. amu leen antécédent yoo tax mu mën a parce que pourquoi non mosuñu non je sais pas parce que vous êtes candidat mais je suppose je suppose que loolu rek tax parce bu doon loolu gëm naan du ci am mais du mu sori gannaaw moom nee na am nay preuve man nee naa damaa bëgg a seetal sama der bu amee preuve bu nee fa doonee benn dana ko teg donc vous affirmez wala yaa ngi confirmer ne que amul benn preuve dama ne la lettre boobu mus sa am musuma bind mémoire musuma recevoir lettre mémoire xaw ma mémoire lu mooy dégg ko ni nga koy dégg ci bi d' accord aw ma ak moom benn familiarité bu war a justifier loolu mais c' pas ça qui important gannaaw moom nee na jot na lool léegi dina dem ci yoon rek mu génn ko vraiment man dama jàpp bi ma ko njëkkee dégg dama jàpp ne wallaahi azim dama jàpp ne dañ ko dafa juum donc dafa juum jéemuma ci wut leneen nag lu spécial wutuma ci xaalis wutuma ci leneen lu mooy ne seetal sama der benn seetal sama der bu reconnaître que moom def na erreur man mën a arrêté procédure bi bu doon sama sago sax gannaaw ñun dañuy dem élection te jàpp naa ne moom it bëgg na ne dafa dem élection même bu bu ma bu ma yoon doon déggal na nañ bàyyi ba élection passé ñu xool ñu traité dossier bi parce que loolu mooy li am njëriñ. pour lui permettre mu mu mën a. pour lui permettre mu bokk. mu mën a bokk ci élection ah, ah, yooyu la. Ah. mais euh, enfin. c'est toujours la question qui demeure sénégalais yi ñoom euh, ce qui les intéresse aujourd'hui mooy transparence par rapport ak seen ressources euh, euh, naturelles yi lee c'est bien nga porte plainte pour que ñu mën a xam exactement ce qui s'est passé mais ba tey ça reste flou peut-être ci ci ci ci bopp ñenn ñi ci yi parce que pourquoi à l'instant Euh, euh, maître a besoin de s'adresser à vous et non pas à un autre candidat. Ah, son adversaire mais loolu nag moom man duma ci tontu soxna si. loolu c'est peut-être euh, candidat du pouvoir mais pourquoi. ah loolu laa foogoon dama mhm. man loolu duma ci tontu néegani moom moo ci war tontu parce que moom.